kaas mën nañu. mën nañu bëgg naa bëgg ah, euh, seen yoon nekk ci génn leen sama diggante maam maam. naa def la ah, si jàmm ba dangaa cool na ah, en général nag toujours nii la. ñi gis ñi kii ci télé bi cool nii. la dangaa cool de. d'habitude sa kër nii nga mel. da nga kuul nii. très nit day maam bàkkaar na ci yow ba taayi kon. Hmm? ma ne ko nit bàkkaar na ci yow ba taayi ndeysaan. Hmm. mais maam bi nag maanaam tey jii lan mooy sa kii boo xëyee le matin habitude habituellement lan ngay def. Ah. Hmm. su su ma jógee premier réflexe bi mooy nu may sangoo julli. waaw déjà balaa maa xalaat dara après euh, jublu ci liggéey bi xam nga man maay responsable Walf Net. waaw donc site internet boo xamante nii donc dañ ko war di alimenter tout le temps. man ak suma équipe donc su ma xëyee ci loolu la ñuy taxu. Mm, des fois ma am chronique le matin à Walf ma dem fa les lundi surtout mais mm-hmm. sinon à part ça maay concentré Walf net ba ba may dem si rajo bi. wala télé léeg-léeg loo ndëkkee Peyton Pendambe. voilà looy ndëkkee da ngay jël kàddu kese. man man nag ça ça ça dépend des fois damay xëy. mën naa ne café rek dinaa continuer noonu. daanaka lii lii moo tax nga kóol lii moo tax nga kóol lii <laughs> la lii la lii la. Ah, mais xanaa xanaa dina dina ah. dina consommer local di nga naan fonde wala lekk cere wala. ça dépend euh, non fonde moom entre nous gëj naa ko naan trop parce que. Mhm. Mm, euh, xam nga bu nekkee à Diourbel foofu ay euh, cere fonde yooyu na la jege mais à mhm. Dakar moom. Mhm. wax dëgg yàlla. du habitude bi ñu togg kër ga te loo xamante la tamit préfère ma di ko jënd ci biti d'habitude sax man lekk restaurant moom sawar ma di préfère suma bopp ma toggal man sama bopp ma dugg si waañ yow mii ah, <laughs> ah, la toggloo ak loo ah, <laughs> nga ne togg rek ngay def <laughs> lan ngay togg nga ne. non loo xalaat rek. loo xalaat rek. ay ceebu jën ak ay yooyu. wala ay petit plat wu tubaab ay omelette euh, farci fromage jambon yooyu. Euh, oh, oh, oh, waaw nañu jàpp yooyu rek. ay bàyyi xool bi rek. <laughs> nañu nga may laaj suñ koy defee. maa la ko wax fa laa jëm voilà jëm de wallaay falaa jëm en tout cas c'est un plaisir de te de recevoir c'est un plaisir ñu dalal la ñun d'habitude duñuy liggéey jour férié mm-hmm. mais pour wax la ne euh, jox et plaisir de te recevoir sur ce plateau de Café mm-hmm. on a improvisé cette matinale pour vous et pour nos internautes surtout parce que dañ la doon laajte souvent sur les commentaires naan eh, invité mm-hmm. donc bienvenue chez toi sur Sans Limite euh, ñu ngi nuyu internautes di leen ziar fépp fu ñu nekk biir ak bitim ñaanal nag une bonne fête parce qu'aujourd'hui c'est 15 de mm. l'Assomption notamment la communauté catholique chrétienne ñu ngi leen di souhaiter une bonne fête de 15 août aujourd'hui et puis euh, le reste du monde également ñu ngi leen di béggee bu baax di leen ziar Ngoné Saliou bonjour Pape Ousmane Cissé bonjour à toi Cissé Ngari ñam meew tëmbal glace Nabou Cor <laughs> waaw kay Aïcha di doxal. jërëjëf Adjaratou ah euh, c'est un plaisir ah. moom lay wax lii Pape Ousmane ma ni ko moom il est formidable. Euh, reste comme tu es une chance sur yaay buur tey moom daa ñëw ci safar bi. waaw ba léegi yàgg nañ ci. Aïcha asalaamualeykum wa rahmatulah. tu es très emboutée. merci beaucoup. Euh. nuyu naa la. fay naa la dalal bu baax euh, maam Birame mhm. mbégte la pour ñu ñu bokk ak yow euh, plateau di seetaan comme ni ñuy seetaanee du nuyu maam yi du nuyu Passemal di la fay du nuyu internet danga neex ndekkee tey euh, tey kii laa jël ni ñu ko waxee petit pois petit pois bu ah, ah, sew bi loo ah, ko booleel bon est-ce que du lentille sax waaye yaakaar naa lekk nga daal lekk nga daal lekk ah, sa jàmm nuyu naa internet yi. <laughs> moo tax ma jaaxle. <laughs> di nuyu ñuy euh, seetaan moo xam ne nekk ci réew mi moo xam ñu nekk bitim réew. Mm-hmm. jërëjëf euh, alors comme euh, tey mami ni mu ko waxee les jours fériés duñu ko faral di liggéey du am matinal kon war ngeen a xam nii la revue des titres tey du am. ci bile émission day toxu rek ba ëllëg incha allah. mami ñëw daal di ñuy booleel yu tay ak yu démb ak. daal di ñu koy tënkal ëllëg incha allah ci ajuma bi ci seen euh, dernier numéro. alors euh, xam naa ni dañuy euh, enchaîner ak cas sur cas ànd jaratu Ajaratu moom tey dinañu ci ñëwal ci ñaar ci ay cas yoo xamante ne dina ko ubbi fii ci plateau bi. Euh, beneen bi mu ñeel euh, benn euh, accusation ci benn nit boo xamante ne dafa dafa fàq walla mu mu mu daw Euh, Cheikh Bamba euh, Fall da cee yëkkati ay euh, kàddu loolu coowul lan la lan moo ko wundu ak kàddu yu mu ciy yëkkati lu mu doon. waaw wàllum ONAS dinañ ci gën a xuus mais ci jamono ji li ñu amagum ci information mooy dañu yot ay xibaar ci ñenn. Mhm. ne Cheikh Ahmadou Bamba moom moomule ginnaaw ba ñu teggee kii nga xam ne moom mooy Cheikh Dieng ci ONAS. ñu mhm. ne nag jarbaatam la waaye itam foofu la doon liggéeyee ñu daal di ne nag boobaat léegi daal dañu ko gisul ñenn sax wax nañu ne gendarmerie daf ko doon wër moom nag daal di Euh, réagir euh, ci euh, accusation yooyu nga xam ne dafa jàpp ne moom daal ay tuuma dong la ñu teg ci kawam te itam musta daw benn yoon ñu daal di koy déglu rek li nga xam ne wax na ko ndax sax mi ngi wax naan altine dana ñëw liggéey si ak lu ci munti am dañu koy déglu en attendant ñuy xool mbir mi fan lay mujjee. <laughs> balaa balaa ngay teg réaction euh, lan moo tax mu daw lan lañ ko waaw loolu nag moom mënaguñu koo wax léegi. li wax daal moom mooy euh, ci information yu ñu amagum ci loolu la mën a limité wu. dañu ne moom attendant bi ñu teggee euh, docteur Cheikh Dieng ci post bi mu nekkoon moom ca la gëj a si. waaw ñu jàppee ko ni dafa dafa daw. ñeneen ci presse bi ñoo bindoon dafa dafa dafa daw. ah d' léegi moom moo ci indi ay leeral moo ci indi ay leeral ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waaw effectivement j'ai reçu ay euh, vidéos man dama nekkoon ci ziaru Cheikh Ahmed Tidiane bi donc c'est après que j'ai on m'a envoyé des vidéos ma seetaan ko lire ko euh, dégg ay waxu ñaaw ay calomnie ay wax yoo xam ne man je n'ai même pas compris je pense que lii moo tax premier ministre Ousmane Sonko di wax naan il faut que ñu réguler réseaux sociaux yi te assenir assainir la presse parce que tamit di génne information yi tellement fausse sans aussi nga am ci ay vérification c'est très te ñëpp dañu am njaboot. donc lii moo tax ma indi demande yi man j'ai pris quelques jours j'ai pris cinq jours de repos euh, ma dem ñu invité ma entre temps fële au niveau de Fès par rapport ak action yi daara yi may def loolu moo indi ma ñëw fii mais je reprends correctement mon travail le lundi matin je n'ai je n'ai je ne suis ni en fuite ni suivi par la gendarmerie man xam euh, je travaille correctement ça fait des années presque dix-huit ans que je suis dans le milieu maa ngi jaar naa ci mii jaar ci agriculture ba yàlla indi ma fii ci assainissement bi je pense que daaw bu fekkee ni gisuñu inondation amul plan Orsec am na ci wàll bu ma joué donc euh, je tenais à apporter ce di ñaax nit ñi rek ñu bàyyi xel ni nit ñi ñuy waxal ay doomu Sénégal la ñu ñëpp ñoo bokk Sénégal parce que lii nii nii euh, mën na jur leneen ak leneen c'est pour ça incha allah ah en tout cas moi j'ai moo mon pour mu jël toutes les informations collecté ko je vais engager mon, mon avocat dès mon retour, engager des poursuites judiciaires contre les relayeurs, les comploteurs, les complices, tous ceux qui ont fait cette campagne, de, cette campagne que je peux qualifier de, de diabolisation, euh, qui, qui, est sans effet, mais vraiment pour que euh, aussi, il y ait Voilà, je vous remercie, Djordjev. waaw mu nekkoon euh, comme ni ma la ko waxee Cheikh Ahmadou Bamba Fall. Mhm. moom nag réagir na nee na képp koo xam ne wax nga ci loolu wala nga bind ci euh, jël na huissier ngir constaté ko te dàqul benn yoon yóbbu la ci yoon. d' accord d' accord comme moom dañoo fësal ay euh, xibaar yoo xamante ni ci moom wérul mu daal di indi. démenti moom <laughs> <laughs> moom nee na eh, xibaar yooyu wérul et eh, incha allah dina leen eh, topp ci yoon du ñàkk nga toppal ñu ko ba leneen lu ci tukkee rek nga daal di ñu koy indil waaye beneen bi ci topp suivi de cas lay nekk ndax ni ki démb indi nañ fi cas bi nga xamante ne ñoo convoqué yaayu Mariam